mais buur mais Ketchup mais buur fii fan la mais Ketchup fii mooy maison de la mutualité mais fii fan la buur mais buur sama yaram bi daa tàng mais Ketchup ah Ketchup lii daf mais buur sama yaram bi daa tàng lii daf may gêné non lii day dañ lii day dañ le 31 lii kon su ma jugee fii mën naa pàcc ñu dem fële lii day dañ le 31 décembre doo fi gis benn 16 benn 16 doo ko fi gis xam nga lu may def fii ah. laa lay dem carré doo déedéet ma fii la ñuy ñëw ndax fii mooy bagage fële nag VIP carré d'or ku mu neex toog fa sa couple di enjoy Pape Diouf waaye ñi nga xam ne dañoo namm fecc namm ñàkk namm bégee fii la ñuy wàcc jàkkaarloo Pape Diouf di ko fi def ba mu saf sàpp le 31 décembre. mais nekkate yàgg Paris taxul taxam salle yëpp. déedéet damaa wër ba tas. déedéet maison de la mutualité. ah la boo xamante ni. sal 31 décembre dëgg la. te 3D Prod rek ko mën a découvrir ndax seen njaxlaf ak seen sañ-sañ ak seen mën a gis nga ba may ñëw ni ma def. waaw gis naa loolu. damaa bëgg xale yu góor yi nañ def lu dàq lii ndax c'est la fête 31 décembre. ndax mythique la. mi yaa gisee. Ah! xale jigéen yi def la leen saf. ndax tout est permis nag. man moom du ma la fen bëgg naa sama mag ji lool Pape Diouf ay wayam daf may daaneel lool attanu ma ko te dama koo bëgg lool waaye mi yaa dama ko yàgg wër <laughs> la ilaha illallah mais bouge ah dama ko ñaan votre scandale du jour de ce lundi 27 novembre 2023 ginnaaw lolu nak keroog ca 2STV bi nga xamanteni ki di Didier Rahou invité won na fa ki nga xamanteni moy Carlo di D émission bobu nak dafa semé ben polémique bu bari sur les réseaux sociaux et sur la toile lan mo fa xewoon ak lan mo tax Carlo di ak Didier Rahou am échange ay mots dañ sétane vidéo bi dès soir. té inshallah ci kàttanu yalla dina ko seeti. inshallah dina ko seeti le premier. il est sans façon. Carlo bëgg nañ nga ñëwaat kañ lay doon. jamais. Hein Je reviendrai jamais ici. Pourquoi Parce que je ne me plais pas ici. C'est vrai Qu'est-ce que tu n'aimes pas Ta façon de communiquer. Ah, carrément. Ta façon d'accueillir tes artistes. Tu sais, la communication. Oui. Elle peut aider comme elle peut tuer. D'accord. Et pourquoi tu dis ça J'aimerais bien avoir quelqu'un de taille en face. Oui. Et moi, je fais pas le poids. Capable de relever, non, mais franchement, t'essaies. Qu'est-ce que tu n'aimes pas la façon de présenter. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis qui te vexe, qui te frustre Parce qu'on est en direct, on est en antenne. Non, non, on a dit c'est fini. Non, non, Non, non, non, non. Non, non, Qu'est-ce qui te frustre dans l'émission Rien ne me frustre, tu peux pas. Mais non, pourquoi tu dis ça non, on est en direct, on est à la télé. Mais non. L'heure, c'est l'heure, non S'il te plaît. Ah. S'il te plaît. Carlo, qu'est-ce qui te frustre Je t'ai mal accueilli c'est parce que je dit ça fait longtemps ou t'as pas vu Non, franchement. Non, je, te pose la question. Ah, mais il faut qu'on arrête de jouer avec la carrière des gens mais qu'est-ce que j'ai fait non non non la façon de parler c'est super important Chez c'est les artistes oui qui il fallait waaw. Ah. on peut tu peux pas briser 15 ans de carrière. s'il vous plaît s'il vous plaît. kon yaakaar naa ni ñoo seetaanandoo vidéo bi nga xamante ni DJ Rakhou ak teamam invité na fa ay invité yu bare mën nañ ci ràññee kii di Doucouré mën nañ ci ràññee kii di Djibi Sey mën nañ ci ràññee kii di euh, Mbaye Koutia ba noppi daal di ci gis ki nga xamante ni mooy Carlou D Carlou D nag bu mu defee émission ba pare bi ñu tàggatoo si la ko Rakhou laaj ne ko kañ ngay ñëwaat Carlou di ne ko jamais. raxu ne ko lu tax mu ne ko jamais mu ne ko façon bi ngay traité say invité façon bi ngay manqué de respect say invité moo jamais mu doon benn clash nag boo xam de soulever polémique man nag dama ciy indi benn jàngat rek boo xamante ni sama avis personnel ça ne concerne personne lenn la jàpp Carlo Di c'est quelqu'un de très responsable quelqu'un de très serein quelqu'un de très mature nous bëri ñu ngi naan Carlou D dafa plateau bi Carlou n'a jamais boudé le plateau parce qu'on que naroon le plateau bi ci diggu émission bi lay tekkee micro mais Carlou D dafa gérer émission avec ak maturité gérer émission avec sérénité ba émission bi jeex Nous l'avons ko xalaatam mu Nous a doon hypocrite bañ a doon naafeq wax publiquement

du côté carrière du côté profession du côté communication du côté argumenté mais il l'a fait par respect à ses fans il l'a fait par respect au public comme nous, c'était une émission en direct mu jox leen un respect ba mu mais ba mu du c'est la sincérité qui veut vouer au respect mënon na fa taxaw ne incha allah ñëwaat ngeen wo ko benen émission mu leen di dawlo nangam sangam polémique bi doon seen digënté kawru di dafa fuuy dafa réew légui ñing koy invité ñëwul alors que invité wona et il a préféré être sincère avec vous moy limay wax sénégalais bëggul sincérité bëggul koy wax dëgg dafa bëgg koy fen kon lén la ci mëna a ñi naan dafa buddee il n'a jamais buddé il a été sincère il a été serein lén rek la koy reprocher man à sa place Carlo dit, je serai jamais sur ce plateau pour partager avec ñenn ñi parce que plateau aussi so ci dem war nga poser question ñan ñoy nek ci plateau bi thème bi lan la ak lan ak lan la mais tay ji je ma japp ni que Carlou D fi mu tollu ci musique ak dimension am warul mën partager ak ñi benn plateau ndaxte wax yi du ben du question dama len xeeb. Mais ci nek ci sa domaine nga nek mais domaine carlo La ak sen domaine bokut communication carlo di ak sen communication de musique carlo di ak sen musique ak li beaucoup développer bokut inspiration carlo di daf len dépasser de trop loin donc limay reprocher moy carlo di n'avait pas sa place pour ca plateau gis na fa lu ko neexul gis na dañ ko manqué de respect gis na dañ ko tuutal alors que je dis souvent sur les plateaux de télévision ce sont les invités qui sont les stars pas les présentateurs mais les nag dañuy jaawle journal yi présentateurs yi dañuy foog ne ñoom ñooy stars alors que ki nga invité am contenu boo xam te ne mi ngi koy développé pour war ko jox ko public am kooku star mais toi tu n'es pas star parce que suba soo wàccee plateau boobu animé tôt wala doo journaliste doo dara doo dara alors que Carlou dit avec sa musique il continuera toujours à exister donc je crois que Carlou dit képp koo xamante ni yaa ngi koy critiquer wala di ko wax dara je crois que sérénité la indi jàngalaat na beneen maturité ñu bare gis nañ leen si plateau yi question de l'énergie, neex micro tekki micro bout de budde manque boo on manque c'est irrespectueux mais Carloudi n'a pas montré ça Carloudi a su gérer T'es li gën a métti maanaam ngoy boole li les neex ak la naqari gérer ba émission bi jeex nga soog wax sa en tout cas on dit bonne continuation à Carloudi, un grand bravo et un grand succès pour le 1er décembre sauf ce spectacle Grand Théâtre